par hasard. C'est une lourde responsabilité, un long cheminement. Le premier général que j'ai aperçu de ma vie, c'était Idriss Seck. J'étais jugé sur un arbre pour euh, essayer juste de l'apercevoir. J'étais en sixième prétendant militaire de Saint-Louis. Et le second que j'ai rencontré, c'était Koumba Il était inspecteur général des forces armées. On devait l'interviewer, Bokarnia et moi, pour le journal de l'école, mais on avait tellement peur de lui qu'on <laughs> profond respect pour, pour vous et ce que vous représentez pour votre cursus mon général et nous avons confiance. Je voudrais juste rappeler que ces dernières semaines, on a évoqué souvent le ministère de l'Intérieur sous l'angle des, des urnes, des bulletins de vote, des bureaux de vote, donc des élections. Ce qui fait d'ailleurs que la DG est la direction la plus médiatisée et je salue le professionnalisme des hommes et de son directeur. Mais il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur et aujourd'hui Intérieur et Sécurité publique est d'abord celui de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et de la police administrative. Ces aspects fondamentaux, mon général, qui permettent de prendre en charge la sécurité et la protection des personnes et des biens, ne vous sont pas inconnus pour l'ancien haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Les nouvelles menaces dont vous êtes bien conscient se déclinent en péril de tout genre, et notamment la cybercriminalité, les nouvelles formes de terrorisme, la des trafics, des, des menaces de l'âge présent et futur qui interrogent les vieux référentiels de lutte et appellent une adaptation continue des formes de lutte. Le ministère de l'Intérieur, Monsieur le ministre, est aussi celui de la protection civile, avec une direction dédiée et avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la devise résume toute la noblesse de la mission, sauver ou périr. C'est dire que le ministère de l'Intérieur est au centre de l'État, mais est, est aussi le cœur de la nation. L'administration territoriale, sous votre commandement, et un des cordons qui vous garde de façon quasi ombricale au recoins les plus éloignés du pays. Je sais que vous saurez établir une communication positive avec celle-ci pour améliorer le service public à ce niveau. Ce service public de proximité auquel euh, l'Agence pour la sécurité de proximité contribue. Je suis je reste convaincu que le sacerdoce du ministère du culte, parce que nous sommes également le ministère du culte, sera pleinement rempli. Vous qui êtes imbu des questions religieuses, je vous connais un tout petit peu. On ne connaît jamais assez un homme de votre dimension. Je connais votre inclination, inclinaison plutôt personnelle, que ceux qui vous connaissent aussi pourront confirmer. Je connais votre curiosité intérêt pour les questions religieuses. Donc je pense que à l'image de ce que président, le la République du

ô combien vaillante, ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur. Le peu de temps que j'ai passé avec elle me euh, l'a fait aimer naturellement et je sais que vous saurez la mettre sur la bonne voie en veillant à la rendre plus sympathique aux yeux des citoyens, surtout mes cousins policiers. Je dis cousins en pensant aux douaniers. Donc euh, il font un travail admirable qui n'est pas très connu, qui n'est pas très bien apprécié. C'est votre rôle, à cette reconnaissance qui le, qui, et avec l'aide de Dieu, les aider à veiller sur notre sécurité. En tout cas, vous pouvez trouver auprès de moi toujours une oreille attentive pour apporter une modeste contribution et vous aider à remplir cette tâche délicate que le président de la République de vous confier. Que Dieu bénisse le Sénégal. donc pour bañ a ñu pare nu may waxaat wolof nu tënk ko ci deux minutes rek ci wolof comme ça presse bi yóbbaale ko benn yoon ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm waajur yi sant mag ñu baax ak nit ñu baax ñi ci senegal yëpp nga xam ne seen barke ak seen leer moo tax senegal doon lu mu doon di gërëm di sant mbokk yeeg xarit yeeg ñëpp di gërëm président Macky Sall bu ma nommé woon ministre de l'intérieur tey def nag nekku fi mu dem boobu man fi toog tey di wax coloré ginnaaw lay lay féete sant ko gërëm ko ci ndax ay Sénégalais yu bëree fi nekk war ko mën a yore bu mu mettee mu xalaat ma ci woow ma fi ma nangu fi ñëw ci condition bi nga xam ne xëy na sama mbokk yu bëri sax du ñu waxoon ni yow da ngay xaru leen comme tànk am na soldaar yu nangu joxe seen bakkan waaye nu dem ñu joxe noonu itam suñu bos rek ndax comme loolu la réew mi laaj fu mu toll woon nu nangu fi ñëw yàlla def ci sutura li fi xew ci jamono élection boobu nag bu ñu jàll ko jàmm mën tey di ko wax du du ngóora ndimbalu suñu borom la ndimbalu yàlla moo am yàlla def élection bi jàll ci jàmm ñu voté ci jàmm yàlla jox réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu koy ñaanal yàlla mu jub ko jig réew mi te noonu ñu ko ñaanee woon na ci njëlbeen bi keroog bu ma voté ba pare loolu laa ñaanoon yal na yàlla jox réew mi ku gën ci ñun nanu ko tànnal def ko ci xolu nit ñi mu tànn ko parce que réussir nun ñoo réussir donc nun ko ñaanal mu réussir mu taxaw ko pour mu réussir nu am ci yaakaar nan ci pàcc bi mënu dénk ndax ku nu fi wutu ki yaakaar nan lu mu ciy mën man mi fi dem mi mënuma ko ci muy général Jean Baptiste di sunu mag su suñu wóllëre ñu xam ko ndax ñoo bokk état bi réew mi dafa ndaw daje di liggéey toogaale nañu conseil national de sécurité bu mu nekkee au commandement de la gendarmerie ma nekk directeur de cabinet après nekkoon ministre du pétrole donc jot naa liggéey ak moom tuuti moo mën a seede ci moom mooy ku dal la borom xam-xam la ku jub la donc loolu yëpp soo ko boolee mu jógee gendarmerie nationale commandé ko ñëw commandé ministère de l'intérieur tey nga xam ni police nationale ci biir la nekk donc wàllu kaaraangeeg sécurité waru ko jaaxal donc am na ci xam-xam bu mat sëkk bu war a tax mu mën a téye aspect boobu yeneen aspect ya nga xam ne moo ëmb ministère bi moo xam wàllu élection la moo xam wàllu diine ji loolu ku nekk ci Sénégal rek war nga ko mën a gérer ndax su dee élection yi am na direction bu koy gérer ba bu leneen di ñëw ñu xam ne loolu la autorités yi def mu mu jàppe ko noonu mais wàllu diine bi moom yaakaar naa moom fu mu juddoo yaroo fa war na mën a xam xam na diine parce que nitu diine la dina mën a xam xam na réalité Sénégal war na ci mën a taxaw taxaw bu rafet ba Sénégal kon ne nekk ci jàmm ndax loolu mooy Sénégal bu nuy fàttali toujours ni Léopold Sédar Senghor moo njëkk jiite Sénégal chrétien la woon jiite na ko ñaar fukki at di chrétien jabaram di chrétien te indiwul benn coow ci dëkk bi Abdou Diouf mu ci toppoon jullit la woon soxnaam di woon chrétien muy lu rafet indiwul coow Abdoulaye Wade mu ci topp jullit woon soxnaam di chrétien di tubaab indiwul benn dara indiwul benn jeexi jaax ci dëkk bi Sénégal ngay dem Joal Fadiouth bu mu moom xam naa soriwu fa fekk fa ay armeel yi nga xam ni jullit dafay tëdd catholique tëdd fa soo demee Casamance am na fa loolu mooy Sénégal loolu mooy nation sénégalaise loolu mooy sunu force donc moom présence am fii symbole la pour gën a dëgëral loolu pour gën ko firndeel pour war ne ñun benn nation nunu certes en construction waaye benn nation nunu donc di ko dalal di ko ñaanal jàmm di ko fi ñaanal euh, ndam di ko wax ni mën na compter ci administration bu baax bu mu fi fekk bi man in jotuma fi indaale kenn ndax donte ne amoon naa jot bi sax man tàmm may dem fenn di ñëw di bouleverser noonu rek donc collaborateurs yi mu fi fekk yi laa wóolu rek di liggéey ak ñoom ba yàlla def résultat bi donc bi su amee seen résultat la ñoom seen ndam la ñoom ndax si ñoom laa wéeru ba li nit ñi di wax tey résultat bu rafet la am mais dellu di wax rek loolu ndimbalu yàlla te ndimbalu yàlla nag ñaanu mag ñi baax leen ci jiitu donc di sant di gërëm kilifa diine yëpp ci seen ñaan ci seen taxawu li ma yëg ci dunu wàcc ci kaamil ci Sénégal pour jàmmaam élection yi jàll ci jàmm xaw ma nu mu toll te li ma yëgul xam naa moo ëpp ku nekk ñaan nga ci sa diine ak ci sa gëm-gëm pour yàlla def jàmm ci réew mi ndax Sénégal jàmm moom ñu ci yàlla na jàmm continuer ci réew mi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan nañ ci teewaayu kilifa yi fi daje yi tey parce que lii day wane ni màndarga ku fiy ñëw kër ku baax la parce que li ma gis tey ci ay kilifa ci saal bi gëj naa leen gis ci daje ci qualité nombre de généro yi rek macha allah du ma ci limaat kenn mën nañu fukk te loolu day wane ni donc moom fu mu jógee fa naw nun ko respecté nañ ko jox nañ ko cër yéen moom itam ku baax la ndax moo leen invité dalal leen donc ñu ngi ciy kontaan di dajeeg ñoom fii di gis suñu ay mag yu baax yi xam ne liggéeyal nañu Sénégal yu nekk muy occasion nu rendre leen hommage ci liggéey boobu ngeen defal Sénégal Léopold xàmmeewuma la woon ancien DG de la police ak Codé Mbengue maa ngi leen di dalal di leen saluer bu baax ak ñeneen ñu ma xàmmewul yëpp ñu jéggal ma waaye ñu ngi kontaan daal di dalal fii benn jàmbate Diouf di ko jox kàddu gi di ko wax ni léegi nag kër gi këram la yàlla nag fi yàlla defal jàmm